ci ni ñu taxawee loolu laa jàpp. Mm-hmm. parce que xam nga lu tax fi àddina bi tollu tey quatrième pouvoir bi ñu waxoon ne moom la presse am loolu presse bi amatu ko lenn ci presse bi nag laa wax ñoom ba léegi comprendre guñ ne loolu nekkatu fi bu njëkk dañ doon wax ne presse bi mooy quatrième pouvoir dëgg la de amoon nay jamono presse amoon na doole boo xam ne bu la contrer boo moytuwul doo yendu doo fanaan mais jamono bii ñu toll avec euh, les réseaux sociaux presse bi peseetul sax dixième puissance. Mhm. léegi nag am na ñoo xam ne comprendre gu ñu ba léegi presse bi ah ñun kenn du ñu yëpp ñun dañoo li wallaay amuñu doole. mais ñoom léegi xam nañ loolu parce que boo xoolee euh, presse bi nga xam ne ñoo fi nekkoon télé. Mhm. nekk si euh, daanaka mooy te presse euh, presse classique bi nga xam ne ñoo mhm. fi nekkoon doon ay télé. boo mhm. xoolee fekk si nañ plateforme. Ah réseaux sociaux yëpp ah, ah. ñi ngi si TikTok bi ñi ngi si Instagram bi. YouTube ñi ngi si Twitter bi ah ñi ngi si YouTube ba ñi ngi si Facebook ba. Facebook bi parce que xam nañ ni fii la àddina bi toll mooy télé ci poche. te léegi ñoom nag loolu moo nekk seen problème ak Ousmane Sonko. c'est-à-dire Ousmane Sonko tamit daf leen a lancé défi ba pare atteindre leen. Mhm. loolu nag du neex presse bi mukk ci àddina mooy Ousmane Sonko dafa ñëw tombeek jamonoy réseaux sociaux fekk presse bi jàppoon politiciens yi otage loolu mooy dëgg presse bi bu njëkk ñoom ñoom ñoom ñoo appauvant politiciens yi ñooy daw ci ginnaaw presse bi di leen neexal. ñu lay jox kàddu jox paat di la véhiculer sa message boo ñu bindal la buñ la contrer xas la amoo foo waxee ñu ragal leen. surtout bu ñu téyee sa benn dossier. surtout doo wax balaa ngay wax ñu vili bandale ci biti doo ŋaang. Mhm. Sonko nag dafa ñëw am chance su tombeek réseaux sociaux yi. mu mu mu utiliser plateforme boobu mais affaire bi jàll ba pare Ousmane Sonko yëg ne presse information lay dundee. te moom moo yore information yi xam nga nit bu yoree information te xamu ko moom la ñuy exploiter mais moom dafa yore information yi xam ne moo yore information yi mu toog ci presse bi soxla ko mu xañ leen ko loolu neexul presse bi. Mhm. buy communiquer nan lay def day dem ci réseau sociaux ya Facebook am lay jël wax ci bu njëkk presse bi dañ ko daan ignorer. bu waxee ci page Facebook am ñu bàyyi ko fi mais comme mooy yëngal actualité bi. dañuy obligé dem ci page Facebook am jël ko indiwaat ko ci rajo bi mbaa ñu indiwaat ko ci télé bi ne li mu wax te bu njëkk gis nga presse ba la masaana contre. Mhm. dañu naan bu leen ko jox micro suñ la joxee micro dootoo waxati su ko def benn live am quatre vingt dix mille quatre vingt mille vues en direct yooyu mooy wane ne man amatuma problème dem ci télé mbaa dem ci rajo pour ñu may ma visibilité amatuma ci problème boobu. léegi nag loolu borom télé yi dañu gis ne dafa mel ni daf leen a gannaawal. or que moom li mu jàpp mooy du ma daw ci seen ginnaaw parce que askan wi laay waxal. te message bi ma leen di jox mi ngi jàll. te fi muy jàll c'est gratuit ci man. léegi nag nan laa mën a nangoo ñi bëgguma tënk bu mu njaam goo xam ne dañ may woo di ma euh, defloo émission yoo xam ne bu leen neexee sax ñu dagg ci la leen neex. maa ngi fàttali seen benn conférence de presse bi ñu doon kaas bi mu doon wax ci impôts yeeg yooyu bi ñu paree ñu wax ne ni ñu ni ñu traité information bi dañoo xool lépp loo xam ne dafay choqué état bi ñu dagg ko bàyyi mu jàll. Mhm. yee nag yooyu après dafa tax mu commencé jël recul moo tax seen diggante mosul woon neex léegi nag presse bi au lieu mu nattaat boppam xoolaat gis nga mbër mbër booy bëree di daan ni Tyson daan def. Tyson di daan ba ñu ne Tyson du daanu ab kéemaan la. mu ñëw Bombardier daane ko. Mhm. mu jógee wat ca Bombar daane waat ko mu jógee wat ca Balla Gaye daan ko. Mhm. mujj gi day xam ni màggat naa. Moustapha Gueye amoon na ko fii temps ba ñu naan Moustapha Gueye kenn du moom. Mhm. mujj gi ku ñëw jaar ci moom jàll. jàll Yékini defoon nañ ne du ma sa daanu. mais gis nga boo jëmee mag dangay xam ne da ngaa jëm mag. c'est-à-dire bi foog ñu dugg ci ruq mën a kan ñu xoolaat ñu xam ne poids bañ amoon amatuñu ko. moo tax nii ñu bëgg a defee face régime bi ñoom ñooy le grand perdant. parce que régime bi ci opposition la nekkoon presse bi di ko chargé wax fa dëgg yàlla loolu mooy dëgg di ko chargé muy déchargé wu. ci mhm. réseau yi. yàq moom yàq moom yàq moom ba mu jël pouvoir bi. Mhm. kooku boo bëggee continuer waat ak moom. te yow pouvoir bi mu yore moo lay alimenté. Mhm. yow sa aide ci moom lay jógee. sa fiscal yi ci moom lay jógee. kooku nga war a jàkkaarloo waat ak moom tey mais du sotti moo tax démb bi ma déggee Mamadou Ibra Kane bi jiite yaakaar naa presse écrite bi la. nee na dañuy def tournée nationale seeti kilifa yi seeti société civile bi seeti même kilifa diine bàyyiwuñu kenn internationaux yi ku ne pour ñu wax ak ñoom pour ñu xam njëriñu presse li mu représenté. déjà yow kii defagu leen un mois yaa ngi daw di wuti ndimbal nga war a xam ne cinquant du baax. Mhm. foog ñu yeewu ñu xam na presse rôle du nekk ab opposant ci réew. rôle mu informer juste et vrai kenn waxul mu far ak nguur mais yamal ci informe nit ñi juste et vrai et vrai. Mhm. bul déformer information. bul chargé ko warula la bul joxe information bu wérul te bu dee dëgg rek la sunu presse bi loolu da ciy am ñun sunu presse amuñu problème mu information dañuy collecter xam nga fan la problème bi nekk. ci traitement bi. Mhm. ni ñuy traité information bi foofu la ñuy manipuler lépp loolu mooy dëkk léegi nag manipulation boobu comme léegi àddina dafa yaatu te presse bi ñëpp ci dugal seen loxo. Mhm. parce que foog ñu xam ne su mën a bi nag waxuma press bi yëpp dafa am presse boo xam ne ay politiciens ñoo ko moom bu njëkk presse ay hommes d'affaires ñoo ko daan ubbi mais léegi presse bi ay politiciens ñooy ubbi këru presse jox nit. na ko am gérer. kooku dafay impliqué. xam nañ si tey ñu bëri man xam naa si xam naa si ay sites yu bëri. loolu nag léegi nag loolu presse boobu mën naa libre mais sëñ presse boobu mënta libre foog ñu xam ne presse bi ay loxo politique daa nekk ci ginnaaw. Mhm. loolu nag boo bëggee def face état état bi jël ay jumtukaayam. non bu ngeen xeexee day metti man li ma gëm mooy état bi bu amoon initiative ñëw di xeex nii presse bi loolu sénégalais yi duñ ko ci bàyyi waaye bu dee presse bi ñooy jóg di charger nit di ko sosal di ko waxal lu nekk mais su boobaa état boobu bu dalee sa kaw kenn du wax. Mhm. parce que Sonko bu taxawee ne leen man mënatu leen a bind ci man dara parce que lu ngeen bindul ci man amul loolu dëgg la. Mhm. c'est-à-dire Sonko yow boo ko doon bindal daal loo koy soosal lan la amul loo ko waxulul koo xam ne wax nga ci alalam nga ci waajuram wax nga ci vie privée ci ay jabaram ci ay doomam wax nga sax ne dafay violer cest nga ko mën a bindalaat loo xam ne boo ko waxee mu choqué ko. Mhm. te bi nga ko koy wax amul benn protection. débat boo ubbi ñu nekk ci borom kër goo xam ne yore njaboot ñuy dugg ci vie privée di ci wax yu suufee mais tey am na protection tey ay loi ak règle ñoo ko protéger tey débat boobu mënatoo ci dugg parce que boo ci duggee yoon jëflante ko ak yow. Mhm. kooku bu bëggee xeexaat ak moom fan nga jëm. moo tax man li ma jàpp mooy nañu toog ñu dal ñu def euh, journalisme bu bu bu bu am qualité journalisme mënul ñàkk ci réew. mais sëñ bi na am qualité in jaakum faasiqum bi na ba in fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum naadimin sunu borom dane dëgg la informé leen mais dane mhm. buñ la joxe information nga war ko joxe mhm. mu ne bala ngaa véhiculer information bi sunu borom ne na nga ko gëstu ba xam ne lu wér la nga door ko joxe parce que boo ko deful da nga fi joxe information boo xam ne dana fi jur scandale boo xam ne bu ñu xëyee ñëpp danañ ko réccu mhm. te xoola affaire général bi fi jaaroon sëñ mhm. bi loolu mën na indi ko d'état loolu mën na indi général bi gars yi indil ko fitna mën nañ ko indil jafe-jafe mën na indi réew sax catastrophe bu rëy am fa su ko defee yooyu yëpp nag presse dafa war a xam ne moom responsabilité am la kenn waxul presse day ànd ak état wala mu mais nag informe juste et fii ci réew mi moom non des na fi. Mhm. Ah, des na fi ndax loxo politique. dafa làqu ci biir média yi. Mhm. du ñëpp nag mais lenn ci média yi surtout ñetti média yi moom. Mhm. TFM ITV Sen TV. Mhm. Euh, dafa mel ni ñoom rek ñoo fi nekk comme lu mel ni ay Walfajiri ay 2STV ay Asfiya yi ay Lamp Fall ay Malikiya TV. doo leen dégg ci coow li. lu tax ñee rek ñooy jooy. te moo ñoom ñëpp ngi fi. am na si rajo boo xam ne ah. tamit macha allah moom tamit. Euh, Sud FM Sud FM. Sud FM euh, rajo bu tranquille vraiment rajo bu neutre. rajo boobu mun a wax ne état mënoo wax ne opposant la fa rek. moom lay ñëw informé nii Sud FM kay beneen niveau la. wax dëgg yàlla nag. Mhm. mais nag politicien moomu ko. Mhm. politicien mo ay journaliste ñoo ko taxawal. contrairement tey boo ne woon seen TV na Bougane ñu ne la day politique boo ne i i média xaw ma ITV. ITV di Ibra Kane candidat la woon bii passé. Mhm. day politique. bokkoon ci coalition Amadou Ba. soo nee TFM Youssou Ndour. Mhm. day fekkee ma si boole depuis 2012. Mhm. politique moo ko indi fii mu nekk nekk na fi ministre. moo tax ñetti média yi ñu ëpp coow ci réew mi. wal fajri ki ko yore du politicien. mais moom ab contre pouvoir la pas contre le pouvoir. muy Sid Lamine Niass. Mhm. moom dafa gëmoon ne moom du politique musul posé candidat. waaye nag du ànd ak état du ko contre waaye day informer nit ñi juste et vrai. tuddee boppam. la voix des sans voix. des sans voix. moo mhm. tax bi ñu ko tëjee ñu bëri dañ ko naqarlu parce que dañ jàppoon ne Walf mérito wul lii. Mhm. <laughs> mais comme ñu fi ne rupture lañu woote. ay kii jaar na ci yoon non impôt bi moom dañu fay. ba ba ci RTS sax. voilà gis nga ba ci RTS. Mhm. loolu nag sëñ bi mooy rupture. loolu moom bu dee dëgg rek la amul woon. waaw léegi nag euh, triste réalité bi mooy rupture am na. munoo wax ne rupture am na ci lépp. waaye li jot a jàll lu nekk. boo seetee da nga fa gis ne. am na rupture bu am. Mhm. léegi nag noonu lay évoluer ndànk-ndànk ba keroog ñuy dajal fi ñu bëgg a dem yëpp. Mhm. jërëjëf imaam Ababacar Sylla xam naa fu ñuy tëjee waxtaan bi rek. mooy mhm. euh, sa mbokkum imaam.